pense bien que nit mbir lépp looy dugg rek da ngay xool l'opportunité hmm. dafa am solo l'opportunité de la chose man li may def nii naa jamono ji ma koy def jot na jamono ji pour man du jamono yi politique xam naa nag ñi ko bind noonu ñoom dañoo bëgg ñoom affaire yi di di jax takarnaas ñoom ñu bind <laughs> quoi mais ñu am matière quoi mais man pour man l'opposition am na si ñoo xamante ils ont compris que ne c'est pas le moment de s'opposer parce que nag dañ jóge ci élection ba ki demoo Ndiaye la fàtte xaju fi. Hmm. ñu gañe la yow nga amoo. Ah, ngay pene non non de s'opposer mooy lan. non xam nga am na ñoo xamante ni avant et après les élections ils s'opposent parce que ñoom ñii xam nañ ni. il nañ ni non ils vont s'opposer. s'opposer nous on veut une opposition forte crédible une opposition responsable et pertinente. Hmm. ñun loolu la ñuy xaar ci ñoom parce que opposition day créer équilibre opposition da lay permettre di la fàttali say njuumte yow ngay corriger opposition day dëgëral démocratie. boo demee si constitution bi sax wax nañ ko fa. Hmm. nous bu fekkee bu ko jëlee nii nga ko waxee nii dina neex de. noonu noonu lay demee sax ñun loolu lañ bëgg. waaw vraiment vraiment responsable waxuñu ñuy tuub waxuñu ñuy tuumalaate di weerante wala di di wax lu nag su dul noonu. mais ñoo xamante ne day proposer day contribuer hmm. lii baaxul teg fi dara. tout à fait man loolu laa gëm. mais est-ce que moment parce que bu ñu falee nit ñu def deux mois yow barki dem moo bu vous peinez même à avoir cent mille voix dans tout le Sénégal. ñi ay 40 mille ñi am ay 50 mille voix ay 0 virgule et quelque pour cent boo si jógee pour man danga war a gën a tal sa bopp maanaam man nan laay fexee ba jógaat nan laay fexee def évaluation élection yi ak fan laa jëm ak nan laay defee ba remobiliser wu ba teg ay structure au niveau de la base am na ñoom te looloo leen war a gën a organiser wu. Mm-hmm. soo paree nag boole si nag di observer di observer parce que deux mois dara xaju si dara ba ba jar ngay opposé wu c'est surtout de tirer. ci au nouveau gouvernement surtout que ñoom ñu ngi toll ci def état des lieux ak commencer di poser ay actions. Hmm. donc bu ñu commencer poser des actions peut-être fii ak un un voire deux ans peut-être nga commencer def évaluation ci li ñu ci ci li xamante moom la jot a poser comme action mais pour man deux mois dafa teel deux mois boo ci génnee vous serez même impertinent boo waxee kenn du la déglu parce que dañu naan c'est pas le moment. booy jóge